ونسح الأمة ومحو الظلم وكسف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيداء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا حالك دين إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dina ko nu tàmbalee ci tur yàlla subhanahu wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ginnaaw loolu ñu ngi nuyu mbokk jullit yi nga xam ne ñoom lañ fekk si fii tey di jiital ci nuyoo bi ilimaan bi nga xam ne moom moo waroon jiite liggéey bi ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo nekk ci ginnaawam ñuy ñaan yàlla subhaanahu wa taala yéen bi nga xam ne moom la leen yàlla yéen yal na leen ko yàlla jàppale te mooy liggéey islam ginnaaw loolu mbokk jullit yi thème bi nga xam ne moom la ñuy fàttalante tey te mooy alwaayul islaam yi mu nekk thème boo xam ne tey ci jamono yii nu toll ci guddi yi war nañ koy bëri luñ koy waxtaane trop lan moo waral loolu mooy xas wi gën a rëy te yàlla xas ko doomu aadama mooy ñàkk yëg-yëg mooy ñàkk conscience te tey feebar bu rëy bi nga xam ne moo dal jullit ñi mooy ñàkk conscience mooy ñàkk yëg-yëg oto boo dugg am na ko jiite kër goo dem am na ku ko jiite dëkk boo dem am na ku ko jiite mbooloo boo dem am na ku ko jiite association bu mu mën a doon am na ku ko jiite dëkk boo dem am na ku ko jiite islaam amul ku ko jiite ñàkk yëg-yëg fii la yem mouvement islamique boo gis tey ci àddina këru diine boo gis ci àddina bi am na ku ko jiite waaye lislaam amul ku ko jiite loolu lay laaj Omar waxoon ku dee am nga ku la jooy ba mu des islaam ku nekk rek am nga ku la jooy ba mu des islaam kon mbokk yi ñàkk yëg-yëg weesuwul islaam amul njiit un milliard ak genn wàll julli di tey un milliard ak genn wàll amuñu ku leen jiite ci àddina bi boo yoroon léegi ñaar fukk bëgg ko jox yeneen diine yi fi nekk nga bëgg ko jox seen njiit am nga koo koy jox ku yoroon tey cent franc bëgg ko jox chrétiens yi am nga koo koy jox ci Dakar wala boo yoroon cinquante franc di wër koo koy jox njiitu chrétien yi ci àddina bi am na koo koy jox boo yoroon quatre milliards vingt milliards trente bu ko jox njiitu jullit yi koo koy jox wax leen ma kenn ma dégg turam fekkee am na ko wax leen ma ko doo am koo ko jox mbokk yi wallahi alazim feebar bi gën a rëy dal jullit yi tey te wallahi bu fajuwul dañuy mel nii gën a continuer mooy ñàkk yëg-yëg mooy xafla loolu tax borom bi xas wu gën a rëy wi mu xas doomu aadama yi mooy ñàkk yëg-yëg ci suratu araf borom bi mu ne wa laqad zara'na li jahannama kasiran min al insi wal jinn aw min al jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal ulaika humul ghafilun borom bi mu ne subhanahu wa taala safara dama ko préparel ay nit ak ay jinni ay jinni ak ay nit laa préparel safara te dina fees dafa mel ne dañ ko laaj yàlla lu tax loolu mu ne doomu aadama yooyu nga xam ne fas yéene naa leen yóbbu safara ëllëg dañoo am ay xol te duñ ci comprendre dara mu ne ma may leen ay bët te duñ ci gis ma defal leen ay nopp duñ dégg yàlla mu ne ñoo ñu ngi mel ne ay rab ay bàyyi ma xoolal doomu aadama mbokk yi yàlla ne wa laqad karram naa bani aadam laqad xalaq na al insana fi ahsani taqwim mu ne waat ulaayika kal anaam yàlla tàgg la fee bare ñëw fii ne ñoog rab yi xar yeeg béy yeeg mbaam yeeg fas yeeg ginaar yi ñoo yem su ci yemoon sax mu nekk jàmm waaye mu ne balhum adal ñii sax ñoo gën a sànku rab yi adresse bu garaaw bi mooy ulaayika humul xaafiluun ñii daal ñoo ñàkk yëg-yëg dëgg dëgg dëgg amuñu conscience kon su fekkee kon dañ bëgg a waxtaanaat waxtaan boobu lee li ci war mooy yambaxi an laa na man la tarxaxa waru ñoo sonn bis bu nekk di ko wax ndax looloo dal julli di tey ñàkk yëg-yëg wala nataab takraaraha waru ñoo sonn ti di ko baam guddi ak bëccëg xatta tatajazzara fi lqulub wa tatashabbaa biha nufus wa tusbixu xayatan fi madariki nnaas xaajiratan fi waaqiihim dañ ko war di ko baamtu guddeeg bëccëg lu teew ak lu fàddu tàngaak ak sedd ci waxtu wu nekk ci jamono yu nekk ñu yëgalaat julli di seen bopp ñoom ñooy ñan ñu yëgalaat julli di seen bopp lan moo taxoon yàlla bind leen indi leen kaw suuf ba loolu nekk loo xamante ne seen xol yi danañ ko suur mu fees seen nopp yi mu nekk mbir moo xam ne fu nu mënta nekk loolu day nekk seen xel guddi ak bëccëg fu ñu mënta nekk ci jamono bu ñu mënta nekk ndax loolu nekk seen seen bopp mbokk yi mu nekk waxtaan boo xam ne moom mooy waxtaanu liggéeyal diine innaha qadiyatul amal li diin mooy waxtaan woo xam ne dañ ko war di wax ndax mooy waxtaanu liggéeyal diine ku amul conscience islamique munoo liggéeyal diine xoolal Sénégal fi nu toll tey téeméer boo jël juróomadul jullit waaye munuñoo liggéeyal diine yàlla lan moo waral lool mooy dañoo amuñu conscience islamique bu leer seen bopp dañuy làmbatu ay taxankatu guddi lañ islam daa xëy ñu kont sunu islam bi xam ngeen ne du islaamu sayyiduna muhammad islam boo xam ne xeesal bi ci la bokk cigarette gi póon bi ndënd yi na xumbate dagan loolu du lislaam islam du ay xumbaka dagan ak tas lépp loo jël ci la bokk loolu du lislaam islaam aw dundin la wu yàlla waxoon nit ñi nañ ko dund yàlla mbir mi da koo ñor ba nga xam ne dafa yónni ku jàngale naka lañ koy dundee loolu doyul mu wàcce téere pour nit ñi xool naka lañ bëgg na ma naka la bëgg mbir mi ñu jaaree ko noonu mais ñun suñu islaam bi xoolal loo jël rek ci la bokk da ngay dégg ñu ne l'essentiel daal na nga julli quoi waaw noo mënta mel daal julli quoi amul problème subhanallah mukk abadan noo mer a julli ak déedéet loolu du diine doomu ndey yi mbokk yi ku amul conscience islamique mënoo liggéeyal diine ñaareel bi mooy innaha qadiyatu kulli muslim te gis nga wallahi liggéey boobu liggéey góor la liggéey jigéen liggéey mag liggéey ndaw liggéeyu ñëpp la xam nga tey li am ci diine mooy mag ñaan fa wala ilimaana nga fa wala sëriñ baa nga fa wala mbokk yaa nga fa loolu du lislaam lislaam mag ñeen ndaw ñi góor ñi ak jigéen ñi kenn ku nekk da nga war a joxe sa participation ku mu mënta doon am nga lu la lislaam soxlaa waaye xoolal sunu islaam tey mooy lislaamu mbokk yaa nga fa lislaamu borom xam-xam yaa nga fa lislaamu diwang fa doy na loolu mooy sunu lislaam liggéey bi liggéey bépp jullit la ba ñu yëg ne foo mënta toll liggéey lislaam dafa tegu sa kaw guddeeg bëccëg foo mënta toll sa biir kër fa ngay liggéeyee jàkk ji ngay jullee foo mënta nekk rek da nga war a nekk benn soldat islaam teg tolluñu fii rek wallahi dundam fenn liggéey bi dañ ko war a def gis nga li ñu gëmee suñu liggéey yii nga xam ne waa ji day teel a tëdd rek ngir teel a xëy su demee day respecté liggéey bi nga xamante ne loi yi ñu tëral ca liggéey ba fekk suñu diine ëpp lu nu lem fii mun liggéeyal yàlla dara lu am njëriñ loolu mooy liggéey bi islaam loolu mooy conscience islamique bu leer bu ab jullit di dugal ci boppam loolu da koy jural wallahi dootul yemale tàngaay ak seddaay guddi ak bëccëg sonn ak ñàkk a sonn feebar ak wér lépp lay yemale ci kanam allah subhanahu wa taala mbokk yi innaha qadiyatun istinfa taatun muattala li tuqaddima li diiniha yowma nafarat kullu ummatin ila risalatiha wa aqidatiha waxtaan la woo xam ne dañ koy war di wax pour lan pour temps bi ñuy fowe temps bi ñuy sànq nga xam ne tey ñëpp am jot Sénégal ñii di ko naane ataaya ñii di ko yóbbu terrain ñii di ko toog di seetaan ay film yu dul jeex ñii toog ko ci grand place damier yi ñii def ko ci simb mi ñii dugal ko ci musique bi kenn ku nekk nga jël temps bi jox ko lu rëy rëy rëy rëy rëy ci sa dund ba pare daal di bàyyi l'islam mu daal di vide looloo tax ñu war koy waxtaane pour lan temps bi ñuy sànq waxtu wi ñuy fowe pour ñu yëg ne wallahi am na ku ñu ko war a liggéey waxtu wi ñuy fowe nga gis borom kër xëy suba ba ngoon amul lu muy def rek lu toog di seetaan télé télé xëy suba ba ngoon amoo leer lu doxal fii doxal waaw douze pions ah vingt pions PMI toog rek di xoos ah léegi da ngay romb sax kees PMI ñu taalal leen làmp ba une heure du matin nga gis nit ñi toog wallahi bu ñu doon tiimee noonu kaamil yi kon nga gis Sénégal ay xuffaasu Qur'an waaye maal asaf xuffaasu PMI lañ am ay xuffaasu PMI mbokk yi temps bi ñuy yàq dafa doy tey suñu xoolee islaam toll nañ fi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne maa ngi nii toog di gis yawut ak nasaraan di leen xëccoo comme ni ay ponkal tiimee boolub ceeb di ko xëccoo qaala qaa'ilun anahnu qillatin yawma idin ya rasul allah xanaa day fekk ñu tuuti mu ne laa bal antum yawma idin kasir walakinakum xusaa ka xusaa usay da ngeen a bëri waaye da ngeen a mel ne mboob da ngeen a mel ne taw bu taw ba ndox mi bari jaar ci mbedd yi di taw gis nga purit bi nekk ci kaw ndox mi doole gi mu am nga xam ne lu mu romb diri la yonent bi nee noon noonu ngeen di mel da ngeen a bëri mais amu leen njëriñ wallahi xadis bii dafa bokk ci mujisatu sayduna muhammad mu toog septième siècle di gis luy xew tey mu ne yéen a ngi ni bëri bay bu ko dee waaye yéen a purit yéen a yem yéen a purit xam ngeen purit yéen yaataay ah kaas boo ci fuural ba mu dikk ba mu fees boo ko tegee balaa ngay fuural ñaareelu kaas bi boo ñëwee fekk ngelaw lu yóbbu ko suuf yonent bi nee na noonu ngeen di mel da ngeen di bëri waaye yéen a purit a yem te loolu wallahi wax dëggu la xoolal jullit tey Sénégal waxuma jullit àdduna mais jullit Sénégal seen islam anam ana sunu diine mbokk yi mu nekk waxtaan boo xam ne war nañ koy waxtaane bu baax ndax kenn ku nekk nga génne sa participation ñi daajoon ay boitu condamné dajji ko ñi dencoon ay yére génne ko ku nekk li nga dencoon pour xew-xew boo doon xaar jot na nga génne ko l'islam da koo soxla ku nekk la nga dencoon di xaar nga am bis boo feetu bu yëboo nga génne ko lislaam da koo soxla loolu tax ñu war di waxtaane waxtaan yu mel nii ndax jullit yi loolu ñuy xaar ñu yëg ne jaratu ko ndax koo xamante ne dafa war a feetu benn jour buy ñëw ci kanamam waaye dee ngi nii di ko menacé est-ce que war naa toog di xaar feet ba te lu koy reyee ngi nii ci kanamam te jullit ñi wallahi seen dee ngi nii di ñëw waaye dañ ko yëgul taxsabuhum ayqaaz wa hum ruquud da nga yaakaar dañoo yeew fekk ñoom ñëpp dañuy nelaw mbokk yi war nañ waxtaanee waxtaan wi te mooy conscience islamique lu tax ndax ñenn ñi nga xam ne jot nañoo yeew ferñeent diine jot naa dugg seen bopp ñooñu ñu bañ a nelawaat ñi jot a yeewu tey ba lenn ferñeent diine leer seen bopp ñooñu ñu leen di waxtaanal waxtaan yu mel nii ngir ñu bañ ngir ñu bañ nelawaat waaye war nañ koy waxtaane lu tax ndax xam ngeen ne ku jël carte monde adduna bi tey di ko xool di nga gis dëkk jullit ñi kenn xamul nu mu toll waaye ñoo ñëpp ci géographiquement rek la ñuy tuddoo ne ñoom ay jullit lañ ci seeni bàyyi yu ñu fekkoon ay jullit lañ seeni maam seeni mbokk yu ñu fekkoon ay jullit rek rek ñu ne ñun ay jullit lañ comme tey waa Sénégal inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala asaari ñun suñuy maam ay jullit lañ woon rek nga ne waa ñu man jullit laa maa sooy jullit laa di la bëgg a dóor tey adduna bi yëpp noonu lan mel léegi nag war nañ waxtaan waxtaan yu mel nii ngir ñooñu di tuddoo lislaam yëg na nekk lislaam nekk jullit nekkul ci tur kese nekkul rek loo donn ci say maam islaam du lu nuy donn mais luy convaincre doomu aadama la mu yëg ne moom ab jullit la te jullit gi mu nekk amu ci gàcce te fu mu dem wallahi du sëgg démb yonent bi da ko jàngale wa benn waay boo xam ne dañ koo yónni ci buur boo xam ne dañ koo garder ba weñ ñemewul teg ci kawam waaye buur bi ndey yoor ak càmmoñ kanam ak ginnaaw ay garde corps ñoo fees bañ nañ ko ba trône bi mu toog or lañ ko defaree tapis bi muy dox xaalis ndey joor bu xoolee ba fu bëtam du yem ay garde corps kese la càmmoñam kanamam ginnaawam waaye yent bi jël benn waaye bu tudd amr daal di koy yónni amr bu muy ñëw ñenn ñi ne fas la war ñenn ñi ne mbaam yor benn bantam ñëw wàcc ci tapp bi ñu ne ko wàccal mu ne leen du ma wàcc yéen a ma woo soxlawuma leen sama mbaam mi ci tapp bi buur bi jaar lay jaar jaar ak mbaam mi ba ci kanamu buur ñu ne ko léegi wàccal nag ñu daal di wàcc ñu yaakaar ne seize bi ñu ko toogal ci lay toog mu daal di frenkulaay ci tapp bi ñëw di xool seeni bagage yi yaakaar ne lii moom da koo yéem fekk ma ngay xalaat lii illa xayaatuna dunya lii mbiru àdduna la day jeex àllaaxira lañ jëm bi ko buur bi ne lan ngeen di ut suñ dëkk mu ne ko ibtaasana allahu li nuxrija man shaa ila ibadati alibad min ibadati ibad ila rab ila ibadati rabbil ibad yàlla nu yónni pour ñu génne ku ko neex ci jaamu ñii jaamu nit ñi ngir jaamu allah subhanahu wa taala yàlla ñu yónni pour ñu génne leen min diqi dunya ila siati al axira génne leen ci àdduna bu xat bi ngeen xam ne da ngeen xat ci àdduna nekkoo leen peut-être lu dul di dajalay jal benn bis jalla jalaaluhu day ñëw jël leen ñu yóbbu leen jal leen ñëw tas jal yi ngeen jaloon jaale leen loolu dañ ñëw pour génn leen ci yóbbu leen yàlla ñu yónni pour ñëw génn leen ci àdduna bu xat bi yóbbu leen ila siati daar te mooy alaxira waaye buur bi ne ko waa bu ngeen ñu woowee ñu bañ nag mu daal di rocc ci jaaseem ne lii mooy nekk suñu digganteeg yéen waaye balaa boobu dinañ leen may ñeenti fan xoolal ñooñu noonu nga xam ne yéen doon yónni woon waaye balaa yonti leen ñun da leen préparé ba ñu am conscience islam yi nga xam ne islam rek islam moo leen yitteel nga gis ci benn waay naan lastu adri siwal islam man xaw ma lu dul islam lastu adri siwal islaamu lii watanan man islam rek mooy sama réew waxay suma zukira ismullahu fi baladin saa yu ma nee cëpp sama tànk ci benn réew dégg ñu naan ashhadu an laa ilaha illa allah di tudd yàlla mu ne uttu arja'uhu min lubbi awtaani ma jël dëkk bi dugal ko ci sama biir xol yëg ne maa ngi sama dëkk gis nga sunu frontières yu ndaw ndawaan yi tubaab yi ñoo ko bindi islam xamul Sénégal xamul Mali xamul Mauritanie xamul ay Gambie islam xamu ko xam ngeen islam lu mu xam wa anna hadihi ummatukum ummatun wahid wa ana rabbukum faabuduni islam benn suuf la islam benn suuf la benn yàlla lañ war a topp muhammad lañ war a roy jeex na amul frontière waaye xoolal tey nuñ ñu nuñ ñu coloniser noonu la ñu coloniser ba coloniser suñu buur kër suñu biir kër yi nax la ci benn puqus bu ndaw dafa la ci ñaari tabax ak benn saal nga yaakaar ne yow yaa ngi àjjana noonu ñu la tëjee loolu la tëjee sa biir xel wan la lenn loo xam ne loolu rek nga war a xool tiital la ba sa islam bii nga ne ñeme woo koo tudd ci mbedd mi rus nga sax génn gis julli di toog nga ne asalaamualeykum waaw gars yi ça bonjour di tubaab tubaabu rus ngaa wax asalaamualeykum pour ñu ne kii dëgg-dëgg am na yëg-yëg islam waaw rus nga ko xoolal julli di tey loo gis bonjour alors bonjour di tubaab tubaabu te fàtt nañ ñun ay julli la ñun ñu gëpp te ay julli noonu mbokk yi la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yare woon ay nit ba nga dégg ci nit naan abil islaam sama baay mooy lislaam laa abun lii siwaa aw ma beneen baay budul moom abil islaam laa abun lii siwaa sama baay mooy islaam aw ma beneen baay budul islaam mu ne nit ñi buñ fi nekkee di tiitaru isaftaxaru bi qaysin wa tamimin nit ñi bu ñuy tiitaroo ay baay ak maam man may tiitaroo islaam est-ce que fii ñun tey am nañ koy tiitaroo lislaam ki gën a dund sonn tey ci àdduna mooy ku nekk jullit tuddoo lislaam yaa gën a sonn tey ci àdduna lu nekk lan lay tuddee waaw mbokk yi ñu war a di waxtaane waxtaan yu mel nii ndax jullit yi fi nu toll tey ci àdduna yëg ne dañoo tardé jullit yi ñoo gën a tardé ci àdduna bi tey bokkuñ ci lenn daara bokkuñ ci waaw rey weñ moo ëpp valeur rey jullit bu ñu rey dee ab jullit dañ naan benn islamiste lañ rey rek ba benn fondamentaliste affaire bi daal di jeex gis nga américain ku ci rep bare ci benn nit waa Sénégal jàppoon léegi benn américain fii ne dañ koy rey léegi ñu gis suñu asamaan si ñu xiin léegi mu xiin waaye buñ jàppoon milliards yi jullit di leen rey day mel ne rek ay weñ nga fekk ñu taxaw nga jël yor toog su ne leen pomp ñoom ñoom ñu dee jeex na amul benn njëriñ lu waral loolu mooy ñàkk yëg-yëgu diini foofu lañ toll tey doomu ndey mbokk yi waxtaanu yëg-yëgu islaam dañ ko war di waxtaane lu bari ngir ñu yëkkati mustawa mustawa jullit yi ñu tolloo da xam ngeen ne jullit ñi fi mu nekk nii daa am premier groupe am deuxième am troisième ba ci mbacc gu ndaw te xam ngeen ne yonent bi xamul woon lool yonent bi li mu xamoon mooy jullit ñi ñëpp yem annaas sawaasiya ka asnaanil muslim yaa ayuha nnaas inna xalaqnaakum min zakarin wa unsa wa jaalnaakum suuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allah atqaakum jullit ñi ñoo war tolloo ni nii amul ñu war a nekk fii ñii nekk fii nangam ak nangam loolu amul ci islam loolu tax ñu war ko waxtaane ngir mustawa bi tolloo ñëpp yëg ne jullit ñëpp a yem innamal muminuuna ixwa ñëpp ay mbokk lañ ñoo war a bokk benn yëg-yëg ñoo war a jàppandoo ñoo war a bàyyee jullit bu nekk nga yëg ne yow benn bunt nga war a ubbi sa bunt yéeféer yi jaar ci duñu noonu waaye xam ngeen ne tey li sonal l'islam mooy ay nit ci biir islaam mën nga ne ay xar yu ay bukki yu sàngoo deru xar dugg lañ xam ngeen ne kooku day du neex a xàmmee bukki bu sàngoo deru xar ba pare ñëw dugg ci biir xar yi yow nga taxaw fale di garder naan lii ay xara nekk bukki baa ngi ci biir minute bu nekk nga gis deret sotteeku te gisoo bukki loolu moo sonal jullit di tey ay jullit yu nekk ci biir jullit yi di yàq islaam bi ci biir ak biti fu nekk lépp lu ñuy def pour islam am ndam ñoom pare nañ pour yàq ko ñoo ñoo bëri tey ci biir l'islam te xam ngeen ne loolu yonent bi dong la yàlla mayoon ne ko diw diw diw diw diw ay naafiq lañ yonent bi génnul àdduna lu dul yàlla wax na ko naafiq yi nekkoon Madinatul Munawwar ñëpp am jeex tàkk mu jël Huzayfatu yamaan yi wax ko ñëpp Omar danaan tëdd ba guddi ñoo ci Huzayfa fëgg buntu këram Huzayfa ubbee mu ne ko mbaa man bokkuma ci Huzayfa ne ko bokkul Omar naka la doon xamee ne diw naa fekk la su amee ku dee Madina day xool sàppe yi bu gisul Huzayfa ci biir jullee gi mu dem ñibbi jël daalam dem ñibbi mu xam ne kii naa fekk la léegi ñun lan moo ñuy won loolu xam ngeen aaya dootuñu wàcc di ñu won ne diw naa féq la xadis dootuñu wàcc di ñu ko wax lan moo ñu koy won moo tax dañuy sonn nag moo tax danañ sonn waaye mbokk jullit yi pour ñu yëg ne ab jullit bu amul yëg-yëgu lislaam mënta liggéeyal diine nañ leen xool yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee bi ko yàlla yónnee lan lañ njëkk a def yëg-yëg yi la yee ba ñi nga xam ne ñoo ko doon gëm dañoo am yëg-yëg comme moom yëg na yàlla da ko yónni pour ñii mu ñëw defar leen ba ñu jubóog seen borom ku ñëw ci diine ji du doo ñëw rek man alhamdulillah man kay dëgg-dëgg léegi bokk naa ci daawa bi macha allah déedéet du loolu moo indi woon gaa yi du loolu képp ku daan ñëw ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di dugg ci diini di jaayanteeg yonent bi daawoo jaayanteeg moom ngir lenn lu dul ay baat ngay wax moom la la yonent bi di gaaral baat yooyu boo ko nangoo wax ñu yëg ne pare nga pour bokk ci liggéey bi soo bañee wax baat yi yëg na yow pare ko xoolal baat yooyu ñun tey def ñoo yomb comme salaamaaleykum te mooy laa ilaha illa allah muhammad rasulullah ku parewul woon démb daawoo wax baat yi démb ñi parewul woon daawuñu wax baat yi parce que baat yi xam nañ baat yi lan la doon tekki waxuñu woon baat yi bi mu jaradil kalimaat wax ko ni laa ilaha illa allah muhammad rasulullah tey gis nga fi ñun fi boo déggoon léegi accident ne tël looy njëkk a wax laa ilaha illa allah parce que parce que da nga koo yàpp da nga ko tàmm mais ñi ko xamoon démb xam baat bi lan lay firi soo leen ne woon wax ko dañuy bañ lan la yéen di wax arab yi xuulu laa ilaha illa tuflihu ñu ne ko mu dugguñu ci parce que dañoo xamoon baat yi ku ko wax ba pare am na loo xam ne ñeme woo ko def mais tey ñi nekk ci gis bii meeg jaaykatu drogue yeeg jaaykatu yamba yeeg agresseur yeeg reykatu nit yeeg tout le monde koo wax mu ne laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah gis nga mais ñi xamoon démb baat yi li ñuy tekki daan ñëw ci yonent bi yonent bi daan tàllal loxoom bu tedd bu barkeel bi loxoom ndey joor bi nga tàllal sa loxo ndey joor mu ne la waxal ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah mu tàllal loxoom bu tedd bi nga jël sa loxo teg ci dafa am looy yëg xoolal abu bakar sadiq radiallahu anhu wa arda abu bakrin keroog ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàllal loxoom abu bakar jël loxoom bu tedd bi teg ko ci loxo yonent bi balaa yonent bi bàyyi loxo abubakar yoon abubakar dana yonent bi lan moo ma war ci liggéey bi yonent bi ne ko li ma war bis ni ki tey moo la war abubakar daal di génn premier jour am ci lislaam mu génn ci suba sa comme laaj na yonent bi lu ma war yonent bi ne ko li ma war moo la war abubakar dafa génn ci suba sa xam ngeen ku mu indi abu ubayda la indi daan na yonent bi kenn ngi nii tuubloo ko delluwaat deuxième jour mu indi abdourahman ibnu aw yonent bi keneen a ngi nii troisième jour mu indi ousman ibnu maazun quatrième jour mu indi arqam ibnu abil arqam cinquième jour mu indi bilal ah ñun depuis kañ ñun ñu ngi ci diine ji kan la ñu indi borom kër goo xam ne mënul sax fexe doomam dem jàkk kan lay indi ci diine grand frère bi ci biir kër gi mënut a fexe sax moom yee waa këram rakkam yi ne leen di leen defal tam de formation islamique di leen ñëpp jàkk ko kan la ñu indi ci islam ah mbokk yi islam du tuur du doon lu nuy doon islam lu nit di jàng la ba mu convaincre ko mu yëg ne lii mooy diine allah subhanahu wa taala amul beneen diine inna diin inda allahi l islam war mu génn juróomi fan bis bu nekk mu indi ponkal te ku bëgg a xam ndax ponkal la ñii ay ponkal lañ wala dama nga jàngi ci seen histoire doy na ci rek xam ngeen bilaal yonte bi mësta julli lulul bilaal moo noot loolu rek doy na yonte bi mësta julli lulul bilaal moo noot lii rek doy na kon voilà moom mi nga xam ne moo ñu may ñu joxeel ko waxtoom wi ñaareel bi ci message yi ñuy joxe ci ay góor yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam formé woon na leen ci yëg-yëgu diini jox nañ leen ku njëkk ki mooy abu bakrin sadiq radiallahu anhu wa arda ñaareel bi mooy tufaylu ibnu amr at tawsi al yamani tufayl benn waay la woon boo xam ne fa mu dëkk mën nañ ne moo doon njiitu dëkk ba mën nañ ne moo doon président dëkk ba ku baax la woon cin daawul fay këram cin daawul fay buntu këram daawul tëju fu waay mën a jóge waxtu woo mën a ñëw di nga lekk te di nga fanaan ci kër gi waaye tufayl dafa yoroon benn aada jamono ju nekk daana bàyyi koo dëkkam dem makkatal mukarram ziyaara ji xërëm yi jamono boobu lislaam ñëwagul jamono bu nekk daan dem ziyaare ji ñetti téeméeri yàlla ak fukk ak ñett yi nekkoon ci biir kaaba gi mbokk yi jamono daal di soppeeku am ku yàlla yónni ku tudd muhammad te tufay la daana dem di ziyaare ji kaaba gi waaye jamono jam daan dem di ziyaare ji kaaba gi jamono jooju ak jamono ji bokkatu ndax jamono yële yàlla yónniwul woon kenn jamono ji nag am na ku yàlla yónni waaye xam ngeen ne islaam bi ko yàlla tànnee mu nekk diine la ay mbindeef takku daan ne diine ji bëgg diine ji nga xam ne moom la yàlla bëgg ñëpp jaar ci bi kenn bi ci jaar moo tax ñi nga xam ne dañu jàpp tey jii ne ñu ngi gis ne islaam léegi lañ koy xeex ñu seen njàng soriwul lislaam ba yàlla bindee asamaan ak suuf ilaa an yarisa allahu al arda wa man alayha ba yàlla di doon suuf seeg ñi nekk ci waa suuf du dañ ñu koy xeex ndax dëgg ak fen ñooy bëri waaye fen du deñ di dëgër di am doole di takku di nekk ci pénc mi fekk dëgg ngi daw lu dëgg am doole am doole saa yu dawee rek wala ay nitam naxas mel ni jullit yi tey ni ñu mel rek fen daa di am doole daa di dëgër daa di instauré wu ci digg pénc mi comme tey ni fen sampoo ci àddina bi ba ñëpp yaakaar ne lislaam te amul njëriñ ci jamono boobu yàlla yónnee Muhammad waa Makka xam li Muhammad di woote lañu jël ay nit biir màkk biti màkk di xeex islaam comme tey ni ñuy xeexee islaam ci àddina bi di ko tas ci ay information journaux yi télévision yi rajo yi ah di tiitloo nit ñi ci lislaam xoolal tey jii sunu réew mi nu nekk cale yeeg rajo yeeg ba ci rajo yi ñuy tuddee rajo l'islam sax da ngay gis ne dañ ciy xeex l'islam information yu doy waar waxatuma la dara nag seen programme télévision lépp c'est anti islamique islam amu ci daara daara daara daara jamono boobu comme ni ñuy xeexee l'islam tey noonu lañ doon xeexee l'islam jël ay nit def leen biir màkk biti màkk saa yu nit di ñëw rek benn délégation mooy ñëw sa kaw ne la foo jëm nga ni ci kaaba gi ñu ne la attention ihzar gulaama aba taalib fa inna lahu kalaaman yufarriqu bihi man yasma'u yufarriqu bayna almar'i wa axi wa bayna almar'i ba abi wa bayna almar'i wa zawji ihzar fa man a'zara faqad anzar foo jëm nga ne damay jaare ji yàlla yi ci kaaba gi ñu ne la mooy tanikul am na benn xale doomu abu taalib ma nga ca kaaba ga nee na yàllaa ko yónni waaye ma ngi wax soo reppee ba déglu ko allahu akbar soo reppee ba déglu ko rek dalay tàqale ak say mbokk ndax wax ji mu yor day tàqale diggante doom ak baayam diggante jëkkër ak jabar diggante nit ak ay mbokkam mooy tandikul képp ku lay mooy tandikuloo kooku bëgg na la loolu lañ nekke woon loolu ngay dégg tey léegi sax ku solu bëgg a dem waxtaan ñu ne foo jëm damay dem ci waxtaan ñu ne ah ñoom diw a fa nekk di ñoom diw maamaanaa ñoom diw ah islam ñu ne ñoom diw foo jëm ñoom diw loolu kañ la fi ay barrage lañ jël def ko tey diggante jullit ñi ay barrière ay barrière ma anzal allahu bi amin sultaan ay barrage jullit ñëpp di ragalante ñëpp dañuy ragalante boo seen asalaamualeykum ngeen seet jullit ñi dañuy ragalante jullit yu ragalante lu tax ndax ay information yoo jot a jot ñu wax ko ci sa mbokk te yàlla dane woon wa in jaakum faasiqun bi nabayin fatabayyanu yow ñu ñëw ne la waa ji yow xanaa xamoo kii laa ila nga ni ah ah yow de sam waa ji wax nga dëgg jeex na pare nga ci moom boo ko rombee léegi di teggi ndeysaan te yàlla waxoon na la saa yoo jotee information balaa ngay gëm leer lul leer lul leer lul leer lul la yàlla waxoon léegi ñu dun leer lu waaw nit wax nga gëm ko loo dégg ci rajo sax ne dëgg la wallahi loo dégg rek dëgg la dëgg la ñu ne nu mu nekk dëgg nga ne rajo bee ko wax bind nañ ko ci journal bi moo lu ñu rajo wax rek ñu bind ko ci journal dëgg la kon ci histoire Tufayl ibn Amr ad-Dawsi wax nañ leen ne Tufayl bi muy ñëw ci islam jamono yooyu dañ doon xeex l'islam lu raw ni ñuy xeexee l'islam tey ndax ku doon ñëw rek ci màkk am na lu la waa màkk di wax mooy mooy tëndikul doomu Abdul Muttalib bi ndax moom mi ngeeg wax joo xam ne ku ko déglu rek dalay tàqaleeg say mbokk day tàqale diggante nit ak baayam diggante boroom kër ak soxnaam diggante nit ak baayam diggante mbokk ak ay mbokk mooy tëndikul képp ku lay mooy tëndikuloo bëgg na la loolu lañ daan wax waaye Tufayl ci kàttanu yàlla mu egsi Màkka rek daje gaa yu mel noonu ñu ne ko foo jëm mu ne Kaaba ga rek ñu ne ko moytandiku ñu jàpp waa ji tiital ko tiital ko tiital ko ba mu jël ay witteen daal di sànc ay noppam pour rek bu demee ci Kaaba ga su fa fekkee Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu mu dégg li muy wax waaye xam ngeen mbokk yi witteen tuuti na ci téye kàddu yàlla witteen tuuti na ci torop mu neex borom bi subhaanahu wa taala waa ji ñëw ci keppaaru kaaba gi fekk yonente bi alayhi salaatu wasalaam mi ngi jàng alquran léeg-léeg yàlla jël aaya yi booye ko ngelaw li sànni ko ci nopp yi mu romb witeen yi romb nopp yi na saraax ci biir xol bi waa ji daal di wër ñetti tuur kaaba gi rek daal di taxaw daal ne ajaban ajaban li nafsi annani rajulun aqilun labid fa kayfa uiru aqli gayri ma man xanaa dama bëgg a dof man waa ji mel ne man muus naka lañ may jiitalee naa moytu waa ji rek ma dem jël ay koto saañ samay nopp te man ma nekk ku yeewu naka laa jëlee sama xel abal ko keneen waaye allah astamiu haza rajul jéem a koo déglu waay su waxee lu may jëriñ ma jël su waxee loo xam ne jëriñu ma ma sànni ca ñag ba rek mu daal di dindi witeen daal di jege sang bi muhammad xam ngeen lu mu ko njëkk a wax samitu maqaalata qawmika fiik dégg naa say mbokk li ñu wax ci yow moo tax diina ji ku musa wax laa ilaha illa allah muhammad rasulullah xaj ba mbawoon aadama mbaw na la kenn musta wax laa ilaha illa muhammad rasulullah lu dul am nga problème ku jàpp ne diina ji danga ci nekk doo am benn problème rek bu yeboo nga tëdd te noppalu wallahi ku jàpp ne diine ji da nga naan laa ilaha illa allah muhammad rasulullah te xaj bi mbawoon muhammad màkka du la mbaw bu yeboo nga dem noppalu ji nga dem ca bàmmeele tëdd noppalu xam ne yow doo jëriñ doo liggéeyal diine olof yi nee nañ mburu ku ko bëgg a remplacer ci puur foog nga mën a muñ mburu ku ko bëgg a remplacer ci puur gis nga mburu fa muy jaar ba mu nekk mburu moo tax ñëpp bëgg ko ba muy sotti ñun nag islaam dañu bëgg a sol dàll muhammad ba pare rek ne duñu am lu metti mook nu muy nekkee nu muy nekkee mustahil mun ta nekk waa ji daal di jege Muhammad ne ko dégg naa say mbokk li ñu wax ci yow waaye loolu lépp nag amul problème man damaa bëgg rek su fekkee yàllaa la yónni li mu wax wax ma ko ma dégg ñun ñu toog fii yëpp góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi leen di jottali kàddu gi Seydina Muhammad waxoon Tufaylu keroog ngeen déglu Tufaylu lu mu tontu yonent bi lan la ko jàngal Fatiha qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin nas waa ji daal di yuuxu daan ne ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah ñaata saar ñetti saar Fatiha falaq ak naas kan moo ko mënul ci biir tànt bi ak ci ginnaaw tànt bi kan moo ko fi mënul ñépp ko fi mën waaye la yëngaloon waa ji ba mu tiit yuuxu daa ne ko yaa rasulallah inna dawsan kafarat billah wa fasa fihim zina fansilni ilayhim loolu nekkul ci dën sunuy dën ñetti aaya yi ñetti saar yi la ko wax yonent bi jàngal mu yuuxu ne ko yow yonent bi sama dëkk fa ma bàyyi koo ña ngay naan sàngara ña ngay njaaloo ña ngay sàcc ña ngay fen ña ngay naan sàngara yónni ma ma nekk benn yonent bu dem waar leen xoolal julli wàccagul wallahi tawhid wàccul dara wàccul lu dul lu tuuti lii ci islam waa ji ñu wax ko ko tey rek mu nekk benn soldaar bu sol yëre islam tey fas yéene liggéeyal l'islam ñun ñaata aaya lañ mokkal ñaata saar lañ mokkal lii moo tardeel l'islam te yonente ne woon fal yu balligu shaahidu minkumul ghaib yéen ñi fekke wax leen ñeneen ñi mu ne balligu anni walaw aaya ku mokkal benn aaya sax yonente bi ne amoo droit denc aaya bi jottali ko mokkal benn aaya yonente bi ne amoo droit tëdd ak aaye boobu te do doo ko jot ñun depuis kañ ñun ci diine yi waaye xoola waa ji ñaata saar lañ mokkal li ëpp ci ñun fii mokkal lañ fukki saar voilà mais ana ana fukki saar yooyu anam anam jullit bi ruus na ko sax wax ruus nañ ko sax jàng nit ñi dégg ko xoola waa ji ñetti a ñetti saar lañ ko jàngal te xam ngeen ne jàngaluñ ko ko léegi rek mu mokkal ko jàngeen histoire bilaal bilaal keroog bañ koy dóor xul wa allahu bi mokkagul ay aaya la ci këf rek yonent bi ne ko qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad mu dem umaya weer ko ci naaj bi naan ko bilaal génnal ci lislaam mu naan ko ahadun ahad ñuy dóor ba sonn mu naan ahadun ahad xoolal mokkul sax ci aaya yi lu bari ñun ñaata aaya lañ mokkal mbokk yi waaye loolu lan lañu jëriñ ak fan lañu dugg ak aaya yooyu mbokk yi du faylu tey jii mu yëg ne simmi na mbubu mu soloon sol na yére yeneen nekk na soldaar pour liggéeyal islam léegi léegi la dugg ci diine waaye mu yëg ne dafa war a liggéeyal diine tey jii la ci dugg ci 30 minutes mu yëg ne ci 30 minutes yooyu dafa war a soppi dëkkam wala moom dong soppi dëkkam lan la wax yow yonent sama waa dëkk ña ngay naan sàngara ña ngay njaaloo ña ngay sàcc ña ngay fen yónni ma ma dem waari ji leen pour ñu génn ci lool yonent bi daal di koy ñaanal benn lumière nekk ci jëbi mu ne ko bëgguma ko fii ndax su ma demee waa dëkk bi dañ naan damaa alku dama bëgg mu nekk sama biir gémmiñ yonent bi ñaanal ko lumière bi toxu ñëw ci biir gémmiñ mu jël ay bagage am romb waa màkk ne cëpp biir dëkkam papa ji da koo bëggoon di ko teeru mu ne ko papa sori ma papa ji ne ko lu xew mu ne ko damaa gëm beneen diine bu bokkul ak bi nga gëm man ak yow kon mënuñu ñëwaaroondaa taal papa ji ne ko li nga gëm loolu laa gëm fekk si naa la bis ni ki tey mu ne ko nekkal sama ginnaaw mu dugg biir néegam jabar ji ne nijaay bagage yi mu ne ko tegal toogal na le maa ngi yow bokkuñ dara damaa gëm diina ju bees te yow bokku ci diina jooju jabar ji ne ko li nga gëm laa gëm mu ne ko nekkal sama ginnaaw mu dugg ci biir kër gi xoolal ñun tey borom kër ci biir këram day dem jàkka bàyyi soxna si muy nelaw doom yi di nelaw ay na lislaam am na ñoo xam ne ñemewuñu wax seen doom jógal julli am na ñoo xam ne ñemewuñu wax seen jabar jógal julli wallahi alazim ay jullit yoo xam ne tey ñemewuñu wax seen kër kenn jógal julli ndax yaru tubaab bu ñu leen yar xoolal ñii ñoom tey lu ñu yëgoon papaama ko njëkk mu ne ko sori ma jabar ji ñëw mu ne ko sori ma dugg ci biir dëkk bi ñii bañ ñii nangu découragé wul de bu doon ñun tey da nga naan xoolal looy dégg tey Sénégal man dama sonn tàyyi naa affaire bi sama yoon nekkatu ci ku jaamu yàlla yaa xam ku jaamul yàlla yaa xam man sonn naa waaw li ma doon waxoon cam te xale bi wallahi bu yoroon marte bi ñëw ñëw ci télévision bi doone sonn naa wala xale bi bu jëloon marte jub oto bi ne da koy dóor ci pare-brise bi est-ce que dinañ sonn mbokk yi wuy leen ma wallahi kenn du sonn reer bii ñu war a togg léegi xale bi bu tibboon potu liibar bi ak ba mu fes de la xorom jublu cin bi maire bi du sonn danaan ko moo da ngay wax rek ñeme woo koo laal ah moo yow dafa sax mooy rab gis nga parce que xam na ne ñeme wu ko mais xoolal suñu diine ji mbokk yi ay dégg man sonn naa yow yàlla ne qu anfusakum wa ahlikum naaran nga ni sonn nga qu anfusakum wa ahlikum naaran aaya bi mu wàccee benn saaba dafa jooy ba bëji neewi ñu jàppoo ko indi ko ci yonent bi ne ko kii bi aaya bi wàccee ba léegi mu ngi jooy yonent bi ne ko looy jooy mu ne man sama bopp rek mënumaa dugg àjjana yàlla jëlaat sama njaboot teg sama kaw looloo ma tiital yonent bi ne ko doy na li nga bëgg ci lu baax di ko sant sa bopp di ko def nga sant leen ko li nga bañ ci li bon te doo ko def di ko moytandiku nañ fexeel ñu bañ ko te duñ ko buñ ko def mu ngoog li mooy islaam lan la yàlla wax qul inna alxaasirin alladina xasiru anfusahum wa ahlim yowma alqiyama ki perte dëgg mooy ki perte boppam perte njabootam yowma alqiyama wallahi ñu ngi jëm ay gudd yoo xam ne di nga gis ku ñu poñe li yàlla naan waqifuhum innahum mas'uluun téye leen ñu laajante tey kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi kenn ku nekk sàmmkan nga yowma alqiyama yàlla neen yonent bi neen yàlla da lay laaj li nga doon sàmm du fay lu découragé wul ci woote bi muy wooteel yàlla xam ngeen wooteel yàlla dafa metti ñii nangu ñuy bañ nu mu def dafa dem ci yonent bi ne ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yaa ma yónni woon waaye dem naa am na ñu nangu am na ñu bañ te nga maa ñaanal yàlla ar rasul sallallahu alayhi wa sallam yonent bi daal di yëkkati loxoom yi nga xam ne mus cee ñaan lu bon mus cee ñaan lu bon yonent bi daal di tàllal yàlla loxoom ne allahumma hdi dawsan allahumma hdi dawsan allahumma hdi dawsan yàlla yàlla na nga jubal waa daws yàlla yàlla na nga jubal waa daws tufaylu daal di delluwaat seen dëkk keroog ba leen yonent bi sallallahu alayhi wa sallam séenee ñuy ñëw li yonent bi njëkk a gis mooy tufaylu waajooju ngeen dégg mu tudd abu hurayra te mu ëpp lu mu mokkal ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waajooju moo nekk ci kanam xala kooku yonent bi waaru ko sax mu dugg ci lislaam mais beneen waay moo ko indi tufaylu moo ko indaale moom ngeen dégg ñu naan ma ñoo tofoon yonent bi 7474 hadis mu mokkal ko ci hadis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ëpp lu mokkal ci hadis ginnaaw Abdullah ibnu Amr ginnaaw Abdullah ibnu Abbas tufaylu mooy moo ci ëppale ñee Abu Hurayra ñee ñoo ci topp xoolal loolu ñun fan lañ toll tey ci diine ji nga xam ne ñun waxuma la ñun ñëpp dañoo judd ci diine ji sunuy mamaa ay jullit lañu woon waaye lan lañ am ci islam man sama juróom-ñaari maam jullit lañ loolu donc xamoo faratay julli xamoo sangu da ngay rus ci yenn yoo xamante ne wallahi ay ay fardul ayn la yu mënta ñàkk ci jullit nga gis jullit bu ko xamul jullit bu mënul tudd doomam jullit bu mënul sang néew jullit bu mënul nodd mënul li xam taaya sax taaya wala taaya nga dégg ku naan man dama yëngal rek sama baaraam bi dama koy yëngal yëngalal bu la yàlla jàppee dina la yëngal ah mbokk yi am loo xam ne mën ta ñàkk war ta mën a ñàkk ci jullit xoolal barkaat yi dem benn xale bu jigéen mu ñëw ne ma kër gi ma vacances yi suñ daara lay jàngee mu ne kër gi may vacances yi kër gi mu vacances yi dafa nekk mais ñooñu xamuñu safaak wétër gee daal bu ñu paree ñeent yi dañ dem julli ci dañ dem tëddi moom bu paree julli ñett muy imposer xale yi pour ñu julli ñett yi seen papa ne ko waa yow yow ñetti ràkka yi ngay teg ci ci ci ginnaaw julli gi loolu mu xale sama doom yi bu ñu ko jullee ci ah ñeent dong la ñeent la mu ñëw ne ma waa oustaz man maa xamul wala dañoo wàññi affaire bi ma mu wax ma nu ma demee ma ne ko lan la mu ne ma ah man damaa jàngoon ne boo julee ñeent ba pare da nga ci rek sa ba huit heures doo ko tëdd def ñaar après def benn ma ne ko waa léegi lan la mu ne ma ah man kat kër gi ma nekk nee nañ du ma fa julli loolu parce que bokk ci maa ko ci yokk ma ne ko subhanallah mu ne ma wallahi borom kër gi nee na du ma ko fa julli parce que bokk ci maa ko ci dugal ma ne kii fan la nekk ci dëkk bi kii fan la nekk lu gën a ruslu loolu. dee leen déglu rajo yi par guddi rajo islam yii rajo yi ngeen di dégg ñu ne rajo islam da ngay dégg ku laaj laaj boo xam ne danga naan kii fu mu nekkoon te wallaay suñu mbiru àdduna nanguwuñ ci lool lépp leer na nañ xam nañ ko am nañ ko nu ñuy lijjantee alal nu ñuy lijjantee ba tabax kër gi te xoolal wallaay suñu kër yu ndaw yi ñaata mètre la 15 sur 10 te suñu kër yi 15 sur 10 la xoolal li ngay daj pour nga am ko 15 sur 10 yi la yàlla dig àllaaxira mooy àjjana nga nga yambare ci. te 15 sur 10 yi ci àdduna lu nekk def nga ko wàññi nga sa njël xëy nga sa tër mere nañ la diri nañ la yëkkati nga ay saaku lu nekk dañ nga pour am 15 sur 10 15 sur 10 da ci àllaaxira nga tëdd di nelaw yaakaar na di nga ko am dañuy nax suñu bopp rek yàlla nee na ajjana dama koy jaay inna allaha ashtara min al muminin anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yonent bi daa ciy teg ne ala inna silata allahi xaaliya marchandise su yàlla dafa seer marchandise su yàlla dafa seer ñu ne ko lan mooy marchandise su yàlla mu ne ala hiya al janna ah mbokk yi ñun fii lañ toll ci suñu diini tëdd di nelaw di noos ah fàtte yàlla ba pare nag am xel mu dal ku dee gu asmaan bi xii ne ñu ne ajjana moom kay alhamdulillah diw ñëw na diwa ko jullee nit ñi bëri nañ ajjana ay waay nay sànq te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam ngeen yonent bi ala maxluqin inda allah ma xalaqa al ilah wala tura basarun ka ka muhammadin bayna al wara asamaan bi mësta tiim ku mel ne muhammad ña dem alaxira fekk ñu fa ku mel ne muhammad ñi fi des ku mel ne muhammad dootu leen fekk nit a dee muhammad ñëw sang ko sang ko yéreem jullee ko dugg ci biir pax bi ñu jox ko ko mu suul ko ba pare yàlla mu ne ko mi ngi safara ah jàngu leen lool jàngu leen histoire Abu Ubay bun Salul président naafiq yi kan moo ko sang bi mu dee yonent bi yemul ci sang ko mais moo ko jullee yemu mais mantoom bi mu doon yóbbu àjjuma gën koo bëgg la ko solal fa mu baree taxaw bëgg a ñaan yàlla ne ko bul ñaan bul ñaan de yonent bi bëgg a ñaan ne su ma xamoon ne bu ma ñaanee yàlla mu ne boo ñaanoon juróom-ñaar fukki yoon it du ma la may safara la jëm te beneen yoone bu kenn ku mel ni deewet nga ñëw taxaw naan da ngay ñaan ak kooku sax ku ndaw la jàngeen histoire Abu Talib Abu Talib lan la yàlla wax ci Muhammad Abu Talib lan la yàlla wax Muhammad ma kaana linnabi wal mushrikin walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikin yàlla abu taalib dafa dee bi mu ko ne waxal laa ilaha illa mu bañ abu taalib faatu wóor na ko ne kii safar la jëm mu bëgg a jéggalu yàlla ne ko teel say loxo bu mu jib ku gëm yàlla ak yeneen warul wóor ne kii safar la jëm mushrik la nga bëgg ko ñaanal ci la ko yàlla wax ne innaka laa tahdi man ahbabta walakinna allah yahdi man yasha Sëriñ Tuubaa nee na alxayru laa yanfau illa li failihi wa charru laa yadurru illa li failihi lu bon du jëriñ du lor lu dul ki ko def lu baax du jëriñ lu dul ki ko def buñ tiimee ci bool bi ne kaay leen lekk nga ñëw tibb di teg sa doom doo suur mukk da ngay yëg ne tàng na waaye doo yëg ne saf na boo bëggee yëg ne saf na foog nga tibb di sex voilà léegi nag nit ñi ñoom na ne jaamu leen yàlla ñun ñu tëdd di nelaw mbokk yi islam bi lii moo ko sonal ñàkk jullit yi ñàkk bu ñu yëg ñàkk it islam li moo sonal islam tey kon kooku mooy ñaareelu nit ñetteel bi ci nit ñi nga xam ne yonent bi da leen a formé woon ba ñu am yëg-yëgul islam mooy Abu Zar Abu Zar xam ngeen ko seen waa dëkk ñoo doon agresseurs yi ñoom seen waa dëkk ay agresseurs lañu ku fa romb dañ lay dóor nangu li nga yar denc moom sax ci la bokkoon waaye mu dégg woote yonent bi mu daal di ñëw màkk bi mu ñëwee ne yonent bi saa salaam xam nga lan moom mooy ni yonent na ko wax déedéet mu ne dugg ci lislaam waaye nag man damay jaayanteeg yow fu ma fekk dëgg wax ko donte dañ may rey boo ma nangulee loolu ma dugg boo ma nangulul ma ñibbi dëgg moom du ma ci yox yoxi laa axaafu fillahi lawmata laa'im soo nangoo ma dugg boo nangul ma ñibbi yonent na ko waaw mu daal di yont bi tàllal loxoom mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah yonti na ko demal nga ñibbi mu ne ko déet am na lu ma waxoon ak yow léegi dégg naa dëkk bi dañuy bañ a dégg laa ilaha illa muhammadan rasulullah yonti ko waaw mu ne danañ ko dégg tey danañ ko dégg tey gis nga de nu mu def def fa bàyyi ba naaj bi tàng mu ñëw ci keppaaru kaaba gi fekk ñëpp a ngi toog ci keppaaru kaaba gi di fiix mu ñëw ba wóor ko ne sang màkka yeeg ñëpp a ngi nii mu ñëw taxaw ku kawee ponkal la woon ku am kattan am doole buy wax jarul jottali mu ñëw taxaw ci keppaar ne ala ñëpp ne teg mu ne ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammad rasulullah baat bi ba mu ko waxee keroog lañ ko gëj a xàmme ku nekk rek la la jege woon rek da ngaa fëx ak moom ñu dóor ko ba deret ji sangu benn waay bu tudd Abbas xam ngeen Abbas moo daw di ñëw ne leen innahu rajulun min Gifaar benn waay la bu dëkk Gifaar su ngeen ko reyee yéen waa Màkka dootu leen tukki ndax bu ngeen di dem Gifaar ngeen di jaar bu ngeen di dël si Gifaar ngeen di jaar su ngeen ko reyee am ngeen problème ñu ne ko daal di bàyyi ndeysaan yonent bi xool ko deret ji sangu yonent na ko waxoon naa la mu ne ko lii du dara lii du dara ci man dafa bàyyiwaat ba ci suba si ba ca suba sa ca même waxtu mu ñëwaat taxaw ci place bi xoolaat gaa yi ku nekk nga toog fa nga toogoon gaa yi naan ah waa ju démb ji ñëwaat na de waa ju démb ji ñëwaat na de mu ñëw taxawaat jaaraat ci baat yi ashhadu an laa ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadu rasulullah ñu duuraat ko même waa ji ko sëbe woon ñëwaat ne leen i innahu rajulun min Gifaar ñu ne ah moom la ñu ne waaw daal di bàyyi yonent na ko léegi demal nga ñibbi mu ne yonent bi kuy teg fondement foog nga teg ñetti birig foog ñu dóor ma ñetti yoon ñun suñu diine ji kan lañ ci dóor dañ la dóor ñun defuñu dara dara wallahi defuñu ko dara lañu def li ci gën a sonn mooy kii muuru ñu ne ko bu bi muuroo kooku dong la de wala seytaane ngaak da ngay tiit nga rambaañ ngaak da ngaa bëgg a jaxase nit ñeeg yàllaak wala ki bëgg a naafi la guddi ñu ne ko xale buy naafi la guddi day dee yooyu la waaw ñoo loolu de lan la wax loolu loolu de lan la wax xam nga Sénégal mooy loolu xale buy dem jàpp ñu ne kii bu dee ñu ne kii xamoon na ne dana dee parce que li mu tàmbalee nekk ndaw nii xamoon na ne du gudd fan léegi ñoom lan lañ bëgg mooy na nga nekk bandi ba nga mag nga tuub subhanallah kooku yi ñun ñoo bon diine da ngay dégg sax ñu utal ko xadis sabiyan sabiyan walaw kaana nabiyan fekk li ni sabiyan sabiyan walaw kaana na la bon lu bàyyi ba troisième jour mu ñëwaat waxaat du dóoraat ko yentam la ko nekk dóor nañ la ñett yoon demal ba ñëw mu dem seen dëkk agresseur yëpp mu tuubloo leen dëkk ba yëpp mu tuubloo leen ba mu déggee yonent bi gàddaay na mu góob dëkk bi bi leen yonent bi séenée ñu ñëw yonent dafa jóg taxaw ne xifaarun xafara lahumullah waa xifaar ngi nee di ñëw ñoom ñëpp yàlla baal na leen waaye benn waay moo liggéey loolu ñun lan lañ liggéey mbokk yi beneen bi mooy message yi mooy ñu jël ci yonent yi ñu xool yëg-yëgu diine ku ko am ki ñu njëkk a jël mooy yonent yàlla nuux yonent yàlla nuux du xam ngeen dund na junni at yu manqué juróom ñu xool moom nuux bi ko yàlla yónnee mu ñëw war a liggéeyal yàlla nan la ko tëralee ndax da ko def samedi ak dimanche comme ñun tey samedi ba samedi ñu ne mbokk am na samedi benn daaw fii nekk ñee at bu nekk nii subhanallah mbokk xoolal jullit yoo xamante ne du ñu yéene yàlla seen dund mooy at bu nekk ñu def fi benn yoon waxtaan samedi bu nekk benn yoon waxtaan dimanche bu nekk benn yoon nañ leen déglu yoon yàlla nuux ku am yëg-yëgu diine nooy taxawee pour liggéeyal yàlla yéen yàlla nu bi mu ñëwee tëral programme am barnaamij bi emploi de temps lan la wax inni daawtu qawmi laylan wa nahaaran yàlla woote naa guddi ak bëccëg yaakaar ne faleem mu ne summa inni aalantu lahum wa asrartu lahum israaran woote naa lu feeñ woote lu nëbbu yaakaar ne faleem yàlla mu ne alf sanatin illa xamsina ama lan moo des ci dund gi junni at yu manqué juróom fukk mu nekk ci mbedd yi nekk ci biir kër yi nekk ci dëkk bi ku nekk bu dugg fa amul ku déggul woote bi ñun ba léegi quartier yi am na ñu déggul woote bi ba léegi ci dëkkandoo yi am na ñu yëgul lu géej gi riir am na jullit yoo xam ne war nañoo yëg ne jullit ci jàkka dafa war ci jullit am na jullit yoo xam ne xamaguñ lool yow nga tëdd fii di nelaw ba léegi am na jullit yoo xam ne ni war nañoo yëg ni tabax jàkk ci koñ bi dafa war tabax fi daara ju ñuy jàngee dafa war bënd fi teen dafa war liggéeyal jullit ñi tabax fi fu ñuy fajoo dafa war ba léegi am nañu ko xamako ñoom ñu ngi tëdd rek di nelaw ndeysaan ñuy jokkatoo jullit yi wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa toogoon benn bis Madina ñu jekki-jekki rek dégg benn biir bu rëy ñëpp yeew ku nekk taxaw sa buntu kër ñi naan lan la lan la nañ leen dajaloo dem seeti lan la fukki nit dajaloo balaa ñuy dem ndeysaan ñu daje ponkal mi Muhammad génn ci lëndëm gi ñëw ndeke moom dem na ba xam lan la di ñëwaat mu ñëw ne fu ngeen jëm